doomu Robert oh Babou Ngom ndeysaan Koumboul oh. Babou Ngom waaw buñ ko dee xool boobaak léegi at mu jot rek am na lu feeñ moo xam ci mbër mi moo xam ci doxalin ci xam ci doxalin ci mu tëgg moo xam ci doxalin ci kenn koo xamante ne nii ñëw na bokk ci ñi nga xam ne moom la ñu yaakaar ci wàllu làmb waaye si tey mën nañ koo jàppee ci phénomène yi. arbitre bi wax na ko nee ko taxawal nga bëre. ñoom ñaar dellu si waat noonu. bëre bi dafa métti. xëy boobu nga mooy. daanaan la dóor ya daja daja na ko. dëgg la woon na ko sax kaw woon na ko. Coen Coen si kawate woon na de. Coen ak Alpha. Coen bëgg naa jàpp ci ngem mais Alpha dafa bañ. waaw boobu da ngay daanu. Poète Sack Alpha. la ilaha illallah. oh. ah oui bien ci biti la woon. waaw bu yóbbu sa wala lu arbitre bi wax. ci biti la yëkkati na loxo bi. amul sax wax moo daan. oui tër bul dem foofu. bul dem fa yóbbu boppam moo yóbbu moo fa yóbbu boppam. dina moo fa yóbbu boppam tëb tëb tëb tëb. daan na ko. biir la loolu. monsieur Sarr ñu ngi lay nuyu ñu ngi toog ak sunu invité sama rak sa rak sama rak waaw monsieur Sarr nuyu nañu. am lay fay béykat sa xol sedd na ci làmb ji. Ah, waaw ñun de amuñu lu ñuy wax. SATS kontaan na euh, manga moo ñu si dugal. waaw sama président laa àndal ak délégation bu takku ak membre yëpp. voilà ànd bi rafet na parce que tey jii li ñu am ci suba ak léegi. Ah. suñuy ay liggéeykat rek ñoo nekk si tribune yi. fees nañ ko. deuxième édition président SATS bi am na maanaa. waaw parce que defoon nañ première édition mais deuxième édition bi daal benn la. am na maanaa. ah waaw am na maanaa. te dina am troisième. ah léegi kay. puisque ñam nañ ko dañuy dolli rek. dëgg la ba dañuy defaat benn. ban discours ngay wax nag am ñëpp ñu bokk SATS. ah xanaa ñu jàpp continuer jàpp si liggéey bi parce que liggéey bi moo waral lii. moo waral lii. parce que bu ñu amul liggéey bu baax. dëgg du ñu leen euh, dëgg la bu ñu leen defarul woon kon du ñu jox ay nit tey ci suba. dëgg ñu dem retraite ñu jox leen ay cadeau. waaw waaw. jërëjëf kon monsieur Sarr kàddu gu mujj gi. kàddu gu mujj gi xanaa di leen remercier di ñaan tamit ngeen jëm kanam Manga tamit di ñaan suñu collaboration bi nga xam ne moom lañ commencé moom tam mu jëm kanam. bon waa xoolal loolu waay wala kun noo def yàlla boo ndam ki daan léegi nga sal Quench newoon naa la ko dama koy daan jël ko xoolal xale bi wala yow bon waaw foog la séeréer fop foog la jotor mais gin ma am nu no fop mi ngi am ne nu ndam taxama sugu gidma to ko sule a paax to ko yusu doom to ko musayn musel a leene fop ne gidma nuun a paax di gërëm baax waa Arafat Kanaayof Escari Mbam suduna sama mag de ko nekk Ziguinchor sama mag yi nekk Ziguinchor Seynou Faye ak waa collègue bu classe yëpp élève yëpp maa leen di gërëm ñoom amaat ñun ñëpp ñoo géré cadre ak kii Juro moo géré cadre ñoom ñëpp maa leen di ah. gërëm toog ak le des arènes maa nga tey xol bi sedd na. merci Bécaye. waa nga ne lan waaw ndeysaan. ndaysaan ñaari ñaari gaynde yi ñaari mbër yaa ngi noonu ci digg géew bi gaynde moom pare na waaye body mi ngi defar ay réglage am yaa nag man damaa seetlu ne body moo gën a bëgg gàllaaj ci mbër yi. yenn affaire yoo xam boo ko amee doo ko sàgganee arbitre bi sifflé na combat bi ak boo busee. ak kii body RFM gaynde wër na body RFM. Oh, gaynde war na ci la laa taxaw na. Oh, làmb neexati na. Oh. lii la la waa làmb ji namoon ñu ngi réeré. ak gaynde aywa gaynde toog si tànk yi. gaynde toog si tànk yi. sinon bëri day wàcc. day wàcc soobu. kon gaynde toogal ci say tànk mbokk yi ñaari koom ñaari mbër yaa ci digg géew bi. gaynde ak Bodi RFM ñoom ñaar ku ci nekk def nga say leemaay ñu ngi leewaatoo gaynde ak Bodi RFM ku ci nekk jiital nga sa tànku càmmoñ yaaw ñaar. voilà na gaynde wàcc. na gaynde wàcc. wàcc bi moo ko ànd la gaynde wàcc gaynde kenn wàccal. gaynde ak bodi RFM. <laughs> yaa gaynde ak bodi na bodi fu sori bodi boof na ko. gaynde deful kadap yow. deful kadap yi. <laughs> mais bodi entraîné na ci combat. waaw waaw waaw oh, waxoo. Oh. hey. gaynde ak bodi ah, ah, mujj. ah waay ak bodi RFM at bi ne na combat bi jeex na. gaynde def ko woon ñu lu koy arbitre bi di wax pour yow lu arbitre bi di wax. non Bodi daan gaynde dund ba oh. oh Bodi daan na gaynde. Oh. Bodi Obama Bodi Sen TV daan na gaynde. ma doom ne daa ci làmb ji. gaynde daa ci làmb ji. wala Alaaji Mbaye. wala Alaaji eh, eh, eh, koo daan. sama tur bi bu ne da ngay liggéey mais kenn la man da ngay soof yow sama sama waay la man. kenn la man kenn la man da ngay soof. final bi maa koy maye la quatre. gaynde ak bodi ku daan ma jox la yaaw. kontaan bu baax a baax tama ma bokk ci ñu ñu jox ma ci cër may bég bu baax di leen di leen nuyu di kontaan El Hadj Bécaye mënu ma koo fay di bég bu baax a baax a baax di kontaan bu baax a baax a baax. naa si délégation bi ma àndal kii mooy madame Ndeye Marème Badiane ministre d'État muy sunu responsable national des femmes mu nekk mbégte vraiment ci bisu FM Sénégal bi bis bi yëpp ñu jël ko tey njukkalee ko le président Macky Sall sunu góor ak son premier ministre Mimi Touré sunu xarit. xanaa kontaan rek awa bu wootee kenn du des ginnaaw ñëpp ñëw le mouvement des femmes bu ku ma woo nga ne ma madame Bayane pare nañ bu yàgg pare nañu leer yi pare nañu yëpp. moom dafay jigéen bu mën góor. waaw kontaan rek. yes kontaan ci événement bi kontaan ci bés bi yaakaar naa ne lii kum doyul dara dootu la doy lii nag dama koy may ndam li dama koy may képp kuy sénégalais képp ku bëggul lu baax yaakaar naa ne tey ndam li yaa ko moom. Alaaji Bekaay moom yaakaar naa ne Sénégal àdduna ñoo kontaan ci moom ci li mu def nii ko dañ koy gërëm. àdduna yëpp ko gërëm El Hadj Becaye jërëjëf. waa kooku Soda Bousso ngi noonu xaritu El Hadj Papa di dugg si gis nga ni mu dugg see. xale lu baax li te di ko fonk bokk. daa fonk bokk. El Hadj naa lu loo wax FM Sénégal. dama daal ci bés bi daal bés daal Becaye. waaw yàlla. Soda Bousso ngi noonu Mbaye Gueye Faye ànd ak ndeysaan gaynde yaa ngoog Soda Bousso cey Soda mérité na lii sama xarit la bëgg na ma fu ma toll ma nga fa balaa maa tëdd mu ñëw. waaw waaw. ah bi am. lamb bi àjjuma. lamb àjjuma la quoi. lamb bi mel nii. mais nag Pape Dieng da ngeen def solidarité ah. ah affaire soldat bi gën a di am. affaire soldat bi gën a di am waaw man man man a. waaw ñëpp a génn gis indil lay indil la laa waay ba eh waay neexul ba neexul waay maa neex lamb <laughs> waay kenn kenn du man képp koo xam yaa ngi noonu taala maa ngi la jox victoire bi sama jarbaata ngi noonu ak Ba Matar Touba waaw sant yàlla si bisu bëggaay mbay mi ak ànd bu wér moo waral tey fii suñu teewaay. waaw. suma combat am naa ba pare. am naa adversaire am naa adversaire am fan yii nii rek. ñu siy na sotti na ba pare quoi. naa la ñi duñ dugg ci làmb ji mais mënunoo dugg xajuñu fi man bi may ñëw li ma fekk ci bunt bi mais mais ñooñu amuñu fu mu jaar xajuñu fi xajuñu fi waxoon naa la xajuñu fi làmb jaa ngi nii xajuñu fi ñi mënuñu fi dugg ndeysaan sama xale yi 2STV nii lan ma defal ca Zénith lay ndeysaan kenn du ñoom ajaratu Ndey Njaay ngi noonu Ndey ah. Njaay bu kanji xewlee mu ñëw ndeysaan kooku jaayee tes tarral la ma damali gànnaay ndallu may sa ndalu naatee kuli naatee de kuli wuli kuli jabi mari mon ko sira donkoto kama donkoto kaso ya sañ tambali mominu bisimilla yalla bisimi karama jawa kula dottam kondane ɓe keere jubo jalama fim banta fenke banta bari ba donte mari koba donte mari ba yaafo mari koba yaafo garidi gëng gëng di baya selimi dilimi wulung walang tannang bannang salam nem somna yalla janda fenk may fenk fetal boli boli dingi ma loo muus muus yafal sa mbër ñu daan ka nga rus ñu ne yaakaar du tas tasar dana am dama ne caatu ñaay amee ñu ne gaaw manu takusaan dama demee boobu manu takusaan dama demee abiya man malit maa ko rajo bëre naa ak maam Gorgui Ndiaye nii. man oto woon taal maa ko rajo maam Gorgui Ndiaye moomu nga wone. man lu ak suuti maa ko rajo yaram baa ngi daw xool ko bëgg naa jóg. mu toog yaram maa ngi xesat fu mu jaar am lu def. ay man. man ma wóorum yàlla. takk koy nuru. ma eh! waa Juga ngi. ma ne man ah le prince a ngi noonu l'enfant chéri maam góor gi Njaay bu bàkkoo rek fi toj maa jum jaajëf maa xeex xawal ndaxaan maa ko xeex xane géej maa ko xeex Mayoro ko ñetti yoon waa bu njëkk bu ñoo toog ñaari yoon ate mo callan bay kumana nga moju balo do ni boy nga ñuule ma be nga sagal fara xala nga jëm ak bu sa digal mo su do xen ñaaw ne lam ñelam ya pañel pat mo sa ko mi ma kala ba daju ma sar ko ngoy ma sar ko ngon ni me la fal mu jël mi la mo di fal ma ca ma ka dem sel ma samba ndre ma ko mo jure ma samba wala diwal bay yaay borom sabar yaay borom xiin yaay borom mbëng mbëng yaay borom tàndal yaay borom sabar mooy borom xiin yaay borom leer maa ngi ko dëgg wala leexi leer tax ci dëgg mooy daan daan la la ca suba ma daan maa gëm Seydou Jamil dama naw Seydou Jamil Seydou Jamil la maa ma rafet a jiko ku am Jamil raw adduna ak alaaxira lu tax mu su ma nee Seydou Jamil Cheikh Seydi Asmaalik say maamu Jamil Cheikh Seydi Aboubacar Bayu Jamil Alaaji Mansour Sy di Bayu Jamil Cheikh Ahmed Tidiane tubaab yi tubaab yi ñoo gën a rafet te ëpp fi xaalis gën fee nekk noble te këccëb a ñuy dundee voilà kaani bi la dafa toj kaani tubaab du ko lekk ndax day futti tubaab dafa nooyi voilà mayonnaise a ngi nii mayonnaise Dakar a ngi nii Dakar kii mooy mayonnaise maay këccëb eh, kii mooy mburaake mburaake tey moom bakkan ci géew mosoo kaa gis. bokkal ci musique ci biir géew mosoo kaa gis. mooy ñëw kii fecc ma boole moom du ay làmb. may ma koy daan dem États-Unis entraîné pour ñeneen ñi. dama géwél mi géwél mi dañ ko wutal way Ketchup. ah waaw. la lay indil yow. mais ay Kaane ay <laughs> li ma ko indil lu bees dàq la xam nga moom combat am ak dafa doon combat boo xam ne stade bi ñëpp moo leen indi. kii di wax. da koy keccoo tey. Ah, yéen leer na leen ne. keccoo ba kaani duñ benn. kaani kaani xale du ko yor. ma ne kaani xale du ko yor. xale daa buuse. yow bu la ba Ketchup la xoolal nga xonk cur. waa léegi léegi ñoom loolu la ñu indi xam nga man lu may indi. kaane gën a saf Ketchup. càcc kit kit kaane gën a saf Ketchup. xale bi ko yor a saf Ketchup. Ketchup xale bi ko jël jël jël jël yow xam nga ni yow ragal nga ragal nga doo jël jël xam nga ni woo nekkee fii sax wax maa la may lo lay dóor ba nga daanu yow alaaji may dinaa la dóor ba nga daanu su ma la dóorul ba nga daanu nee ma xuus dinaa la dóor ba nga daanu ragal nga doo dërëm alaaji may ragal nga doo dërëm doo dërëm ragal nga doo dërëm xoolal su ma la jàppee dinaa la defaral ba nga wax doo dërëm et bon. waa léegi ñii ay wuy ma ñii dañoo bëgg a feeñ rek mais mun ñoo tam de yéen ñii garaawul mu ngeen tam. tam de waa léegi may wax non balaa ngeen ay grand bàyyi la eh eh waa kay taxaw fi taxawal fii waaw taxawal fii tabul wax et bul wax. CNG ñu may na ko ñaar ñi ñu def tous. SDC doo dërëm. lii rek nga mën te te te te te te te te rek a tekki sa kit jël dara xam ko lii rek nga mën kii du tëram barke sëñ Bamba doo tëram. ah mbokk yi combat baa ngi noonu nag. Boucher ak Alaaji Mbay. règlement de compte la kii. waaw vrai règlement de compte. règlement de compte. ñu ne ko ci daanu. <laughs> mais mais ñoom ñaar ku jiitu say tànki morom rek mën ngaa gañe combat bi. waaw ku njëkk ku njëkk a yem. waaw ku njëkk a song waaw waaw poussé dafa normal tey. waaw poussé daa poussé dafa bëgg a réglé. dafa tey tey. day tey Alaaji Mbaye ngi dóor Alaaji Mbaye ngi dóor. Alaaji Mbaye te Alaaji Mbaye dégg naa dafa nekk ci Fallaye Balla c'est vrai day tuus waaye ku mën a bëre la. waaw xale la ci ci école bu mag la nekk day jàng bëre. parce que doole ji nag ci la. Alaaji Mbaye ngi dóor. ñu ngi dóor te boucher ngi jekk. alaaji mbay ngi dóor buuse ngi wute waaw c'est gën a jekk. guy gi noo yenu na bañ na. ku ci daanu coow topp la ci ñoom ñaar. xel la ñuy bëri fu mu nekk sax. xam nga boucher. xam nga seen naa caxabal. yenu na. alaaji bay bañ na. boucher jéem na ko jongle alaaji bay bañ na. <laughs> ñu ngi bëre de. mbagg baax na. ma ndeysaan jabaru El Hadj Diouf Paco Jackson Thiam ñoo toog noonu Paco Jackson ndeysaan moom lañ tuddee woon lamb ji dimanche bële. Bégaay man daal damay sant ñoom Cheikh Amar dañ may jàppale sama combat bi ak ñoom Kader ak Mbañum Diop Suus yaa ma dégg waa MEDES Sëñ Fall Trésor ak Bunaama ak Bunaama Mbuub ak Amir Pouy Wakaam ñoom Matar Dieng waa Boune waa Dalifor waa Pikine ñoom ñëpp maa leen ñaan yàlla ñu jàppal ma yàlla may ma ndam. le 31 janvier ndax Sénégal ñëpp namm nañu yaawu jàll. merci namm nag sama waa kër sëriñ ñëpp ñoom Pape Samb Mbuub ak Souleymane Nder Ndiaye tam nuyu Bamba. merci merci yaaw merci bégaay bégaay yàlla na guddi danoo indiwaat boucher. 100 minutes yu xam nga waxoon naa la. sànq danoo dese 5 minutes dañ di dolli juróomi minutes. mais ñii doyul woon nga yaakaar. waaw mais xam nga règlement moom règlement règlement amul doy <laughs> règlement règlement la. la mais ñoom ñaar dañoo war fii yal na kenn daan morom na fii nag ku gën a bëre rek yow yaa ëpp sens. Hmm. ah Bousse na de. Eh. waaye El Hadj Mbaye ah. ah mbootante nañu ah. ah mbootante nañu ah bu Cheikh Alaaji Bay bu Cheikh Alaaji Bay bu Cheikh Alaaji Bay ñu ngay bëre. mais Alaaji Bay ah, daal ñu ngay bëre. bu Cheikh ñoom ñoo ñu ngay bëre. ñu ngay bëre ngi fi. waaw xatar wër ndomba ñu nga ca jël na tànk ba. eh eh, eh, eh na waar doy na waar. doy waar de. waar. non dañuy bëriwaat doy na waar Alaaji Mbay daan na Boucher. <laughs> Alaaji Mbay lañ doon victoire. non non mais Alaaji Mbay. parce que bi Boucher di xatar bi. waaw po daa toog. fees bi mi ngi ci suuf. fees baa ngi ci suuf waaw mi ngi ci suuf waaw. waaw loolu am Alaaji Mbay mais sax mérité wul na. Alaaji Mbay dafa mën a bëri. dafa mën a bëri. a bëri mën naa bëri ah boo xoolee boo xoolee fi ñu ko yegg. ah bëri la man. soo xoolee fi ñu ko oh, yegg. xool xool action bi. la ilaha illallah waaw loolu combat la. combat la combat la combat la ah. c'est du jamais vu. man El Hadj Mbaye bett na ma. du nit. voilà ah, ah voilà voilà dafa bëre dafa bëre eh, ba Babacar yëkkatiwaat leen. El oh. Hadj Mbaye bëri dafa mën a bëre. Oh, ñu ngi téye ba ko. mais bul jooy bul jooy vraiment bul jooy sereel bul jooy bul jooy bul jooy bul jooy bu la neexee nga ne combat Yaku Sarr baak maam góor gi loolu lañuy wax juge arbitre bi sifflé na Yékini Junior moo nekk seen ndijoor Modou Anta moo nekk seen càmmoñ <laughs> ndeysaan Modou Anta xale bu am assurance wóolu boppam a ngi noonu buur buur Modou Anta xale bu am assurance wóolu boppam a ngi nii waaye na xam ki muy bëreel na xam Yékini Junior cokkaas na mi koy topp Yékini Junior cokkaas mi ngi koy topp Yékini Junior jéem naa duuraat Yékini Junior Yékini Junior Modou Anta Yékini Junior a ngi koy topp Yékini Junior a ngi koy top Yékini Junior a nga koy top Yékini Junior kanam gi soppeeku na fi ñu toll bu la neexee nga ni tigre lay niru Modou Anta cokkaas na Modou Anta dul na Modou Anta daje na ak Yékini Junior Modou Anta daje na nu moom ak Yékini Junior Yékini Junior doon na dóor Modou Anta bañ na xoola tànk yi déplacement yi kun daan ci tànk yi lan lay daane Yékini Junior bëgg naa dóor ma ngay dóor ci suuf Modou Anta bañ na ñoom it dóor na dóoraat na Yékini Junior daw na jël na Modou Anta Modou Anta bañ na Modou Anta bañ na Modou Anta bañ na Modou Anta bañ na xale yaa ngi bëre Modou Anta bañ na Modou Anta ngi dóor Modou Anta ngi dóor Yékini Junior Modou Anta ngi dóor Modou Anta ngi dóor waaye Yékini Junior fi mu jàpp ci ngemb bàyyiw ko génn nañu géew bi génn nañu géew bi ar bi indiwaat na leen nee na leen kaay leen ndeysaan ñoom ñaar ndeysaan entraîneur bi nee nañ ko doo jóg Modou Anta nañ ko da génn géew bi yaa génn saako yi Modou Anta nee nañ la yaa génn saako yi entraîneur bi boobu bëgg a jóg waaye juge yi bañ nanu juge yi bañ nanu nee nañ ko doo jóg nee nañ ko doo jóg amul joxe nox fii ñu toll nii mbër mu nekk da ngay jël say responsabilité Anta am na ci gàllaaj yoo xamante ne nii bu bëree bu bëree bi tàngee rek ndeysaan dootoo yëgati téere yi arbitre bi sifflé na Modou Anta Yékini Junior Yékini Junior sànni na Yékini Junior sànni na Yékini Junior Modou Anta waa Yékini Junior dóor na Yékini Junior dóoraat na ñoom ñaar ba tey Yékini Junior ñi ngi bëre Modou Anta daw na jël na Yékini Junior Yékini Junior bañ na Yékini Junior bañ na Yékini Junior bañ na jàppante nañu ci ngemb Modou Anta loxo càmmoñam jàpp na ci ngemb Yékini Junior loxo ndijooram fa mu jàpp téere la Yékini Junior a ngi dóor waaye Modou Anta ci Senghor la jàpp Senghor gi ci ndigg li Modou Anta ak Yékini Junior Modou Anta Yékini Junior Yékini Junior dóor na ñu ngi dóor léegi nga gis tànk yi buñ temps pourtant bëri bi yëpp ngi ciy tànk bu do buñ bëree woon bëree tànk woon bëree tànk Yékini Junior a ngi dóor Yékini Junior a ngi dóor ñoom ñaar sëgg nañu rokos yaa ngi dem ci biir Yékini Junior dóor na léegi Modou Anta dóor na combat bi metti na Yékini jël na Modou Anta takk na ko takk na ko takk na ko ndax mbot day am taxa tegal chaise Modou Anta bañ na arbitre bi arrêté na combat bi am na kuy nàcc Yékini Junior a ngi naat combat bi metti na Modou Anta Yékini Junior ñi ngi xoolante ci bët ñi ngi xoolante jàppante nanu Modou Anta ngi dóor Yékini Junior a ngi dóor ñi ngi dóor am na ci door yoo xamante ni bu dalee bu dalee borom fu mu jëm ña nga ca kaw delluwaat nanu saaku yi Yékini Junior a ngi naaj Yékini Junior a ngi naaj Yékini Junior mi ngi naaj naaj bu metti sax waaye ñoom ñaar ñëpp xanaa ci docteur bi la ñu jëm ñoom ñaar ñëpp Yékini Junior li nu seetlu ci ay kombaam mooy kombaam day metti kombaam xade badar lay nekk lay nuru moo daan te jël na tànk ba Yékini Junior bañ na Modou Anta Yékini Junior Modou Anta Yékini Junior Yékini Junior a ngi mbot na laa ilaaha illallah Yékini Junior mbot na ko mbot bu rëy oh! kenn musul gis mel nii bëre na daan na bëre na daan na mbot mi na mbot mi na rafet mbot mi Yékini Junior ndeysaan ñoom ndeysaan booba Sa Thiès Sa Thiès kuy tooñ. te ki doon wax. daf lay tooñ man du ma fen déglu ma man loolu sama ndax man ndaanaan laa te gaynde laa te billaahi wallaahi bàyyi ma njool bàyyi jàmbur kooku xool la barki Mouhamed du ma la yow yow yow seen naw ci bàyyi jàmbur bis nga am oh. barki sëriñ eh, ku wax ngay kontagal man du ma nee naa ma seen laay kontagal tooñ quoi ah, bàyyi tooñ yi dama yaakaar bu waxee loolu daf may guure man daja naag maa yow la fu ne ban la yi ngay wax ay sóob la da ngay sóob rek maa yow la na Balla Gaye Baye Mandione ndax dañuy daje Baye Mandione a ngi sifflé seen sunu ndijoor Balla Beye sunu càmmoñ Balla Beye bàyyi ma ñoon sànni na ña xeex Balla Beye ak bàyyi ma ñoon ña nga ci biti neere daanuwu ko daanu laay laay la laa njoo na ngay tekki téere yaakaar naa ne ngeen bu dellu see day xeex abib sifle waat na abib sifle waat na bàyyi ma ñoon Balla Beye fi mu taxaw lay toll di dóor Baboy dóor na ña xeex ña xeex songo nanu Baboy Baboy Baboy Baboy Baboy daan na Baye lay lay la laa bàyyi naa ko bàyyi naa la bàyyi naa la ko oh il lui reste quelque chose gaynde la gaynde la yaa mën gaynde la sama rak xoolal Souleymane Balde ñun kenn mënuñoo xàjjale bëre bi nga bëre gaynde la sama bakkan laa jaay ci ma sama jabar jàmbaar la sama jabar gor piir la piir liggéey ak gore. Marodi Marodi champion nga champion nga champion naa la ni làmb sañ-sañ la bekkaay sañ-sañ la du laneen et eh, waxoon naa la ni ñoom ñaar. à 44 ans à 44 dafa teel a bëri. 44 ans góor ci 40 ans la yam doole bekkaay doole bu ànd ak bu bu ànd ak ndaw mën nga réer mais boo demee ba jëm mag day ànd ak xel. appétit bi mi ngi fi. mais mi ngi fi parce qu'il s'entraîne matin et soir Baye Mandione n'a pas à démériter Baye Mandione dafa entraîné comme Baboy Baye Mandione li koy mais attends Baboy dafa wane doole. parce que c'était à lui de prouver pour rester. ah ki ñëpp a war a bëri moom ah. kenn mënu ko bañ. bis bu rëy bu mu ne ko fi am. samedi 25 juillet 2015 drapeau Pape Ndiaye organisé par Soubatel Bombardier Modou ñoom ñaar arbitre sifflé na ñu ngi leewto Bombardier à droite à gauche Modou Lo à Bombardier ñoom ñaar ñu ngi leewto wax naa dox. day fermé topp ko oui loolu mooy bëre bi day fermer topp ko. day fermer rek topp ko. waaw waay diré ko ci kawam. Modou Lo Bombardier. bi nag. Modou Lo bu dóoree rek Bombardier. ah jot na ko. songoon nanu. waay Modou am na avantage de. Modou Lo ngi ci suuf. am na ngi ci suuf. moo Lo ngi ci suuf bëgg na ko plaqué waaye du ko mën a plaqué. mënu ko plaqué. Alaaji Papa Niang plaqué Modou Lo daan Bombardier de normal la. ah kay bu fekkee tànk yi taxawul. bu fekkee déséquilibre am na su fekkee déséquilibre la te je ne pense pas que Bombardier dina nangu loolu. te ba Modou fi mu yem na fa yem bu mu passé fii. si bu bëtee rek mën na yoo ko non arrêté non boobu. Bombardier ngi door. non door boobu baaxul non non xaj na ko door bi. voilà ba. lay jël. Modou Lo Bombardier yatt na ko yatt bëgg na génn Modou Lo génn na Modou Lo génn na Bombardier ngi koy topp Modou Lo ngi door jëlaat na ko. jëlaat na ko jëlaat na ko. da kaa ëpp doole. waaye mu dëgër na doole ja yow kenn du mu dëgër na waaye moo guerrier la de dëgër na Modou combattant la gis nga mbaar boobu mu ko mbaar waaw bu ko defee teel ci plan bi lay jaar gis nga xoolal ni mu taxawee xoolal mu taxawee Habib bi arrêté na combat ndam gi ah, lii rek ndam fii moo mu Bombardier bëgg na ko nooju. abit bi woowaat na leen ci diggu géej bi Sitor a ngi noonu Sitor sifle waat na Modou Lo Bombardier. loolu la béy. Modou Lo Bombardier. ngi daw di ko topp Modou Lo ngi arrière. Modou Lo ngi Bombardier ngi dox. di jëm ci kawam. moom Modou Lo koy songi. Modou ngi dóor. ñett na ko. ñett na ko. waaw ah, jaar ci flanc. mooy tur mu nax ko. daan na ko. Ah, doole doole doole doxul jàmm. doole doxul jàmm. doole doxul jàmm. da koy bëri loolu sonn mu daan ko. bëri na il n'a pas de mérite. waaye dox doole mu ko bu doole. moo ko bu doole mu day daanu. waaw day bëree ba jeex mais day ko mënu ko mënu bi nga a dellu. day rek daal. ko nangu man nee ko lamb kenn du ko mën ci jël cent pour cent lamb foog ngay touché lamb da gauche lamb foog ngay bougé foog ngay daw mais Modou mënewul loolu Modou toujours ba moom lay wane buy bëree day ciy def jom bam jeex lamb ne kenn du ko mën ci jëm cent pour cent lamb da gauche un pari client bu leen kii appuyé sur la relance doo ko may mu nekk gros écran sa kaw loolu man mais ñu seetlu Modou dafa cherché flanc bi Bombardier tëj ko mais lu tax forcé wul pour jaar. nga xam ne toujours foofu lay jaar moo tax mu tëj ko Bombardier xam ne toujours Modou foofu lay jaar Modou il est dangereux foofu xam ne foofu lay jaar moo tax mu tëj flanc bi. waaw man maay Mouhamed ñu gën maa xam ci Bombardier man maa see film Bombardier ak Modou Lo ah affaire bu nice tamit. combat bi nice na rafet na. kon daal courant bi doo ko joxe. non courant bi teel na teel na du ma ko mës a joxe. Ah. di kontaan ci Babacar Karajo ah da cee jàpp. ak Pocho. ma kontaan nañu. Euh, vraiment film bi joué nañu ko si jàmm. Euh, Bombardier yàlla may na ko jàmm. Ameth nii mooy Bombardier yàlla may na ko jàmm. kon euh, vraiment kontaan nañu lamb ji am na si jàmm film bi dinañu joué beneen film boo xamante ne moom moo dàq bi Babacar 2STV. dëgg la ban baat ngay jëkk a wax waa Sénégal Bombardier. village gannaaw bu hélas maa ngi sant yàlla bu baax di julli seenante bi di gërëm sama ñaari waajur di gërëm samay ñaari waajur di gërëm sama ñaari waajur di waajur ñetti yoon uh-huh. di kontaan trop tey si Sénégal yëpp ndax su ma limee rek dinaa juum uh-huh. di nuyu sama père bii ma fekkante si plateau bi père Birahim di nuyu père El Hadj Papa Dieng déggaay dama la ne tey boo ñëwoon Mbour waaw daa naan beneen affaire la dem naa ba mu yàgg ma ne ki créé làmb sax dafa créé coono parce que stress lay dégg yoo xamante dafa métti. pendant un an. da dafa yàgg dafa dafa yàgg. parce que sport la daan ak daan rek moo fi bi si nit ñi am vraiment moo di sant ñëpp population Mbour gépp di gërëm sama sëriñ sama xarit sëñ Abdou borom ma Karim Malax la. waaw mais pourquoi combat bi diis. waaw combat bi diis ba ah. mooy que euh, lamb heure bu ñu la nee yaay favori rek am nga problème. doon naa wax ni bëgguma nekk favori. Oh, yàgg nga ko wax. parce que bu diiree ñu ne combat bi waru woon a yàgg xoolal ni nga toll ak ni waa ji toll. Mhm. boo jëlee coup ñu ne waroon a jël coup. Mhm. tey jël naa ay ku coup. dañ ba mbapat loo dañ ma ne woon sa loxo bu mu jóg. dëgg la combat bi entraîné ma sax xeex lu bëri trop. Mhm. dama doon def semblant noonu. bu defee nii dañuy xeex mais. li ma si entraîné wu ñu yëpp tey bëri la. mais la ko waxoon. ni ko dal na ni du ñëw waaye bu arbitre bi sifflé boo ñëwul dina ñëw. am na mënoo taxaw. Euh, ankay taxaw naa tuuti sax. Ah, non taxaw nga tuuti. mais yàggul mais waaw bu ko raccord amee moom damay xeex. parce que bi mu la dóoree la la génnee ci li nga ne woon. waaw jël naa benn coup boobu parce que waxoon naa ne bëri dóor damay bañ ñu def ko comme damay bañ de. <laughs> waaw ñëw tagal ma ko ba ma photo aussi. ñu ko yóbbu ko. ah non fii c'est tey moom na leer fii si 2S. dama bëgg chaise bi su ma paree ma yóbbu ko sama waaw loolu dafay leer. ah léegi ma ni Bombardier kenn du laaj roi foo jëm mais foo jëm. Bécaye comme li ma waxoon si combat bi rek daanaka man euh, lu may defati si làmb loo xam ni nit ñi dañ koy yéem ne lii vraiment man gisatuma ko. man daal li ma gis mooy gérer li ma des si sama carrière terminé ko ak jàmm rek. ndax làmb da ngay yegg waxoon naa da ngay yegg au sommet foo xam ne boo fa xasee yegg mënatoo ko romb tey man sama tur mënatul weesu fi ma fi ma nekk si làmb tey. kon donc li des mooy jéem a gérer sama carrière li xool naka laa koy gérer rek. mais euh, pare ko tamit pour joxe roi bi. ah man daal sama sama tey. mooy ma yóbbu ko rek rek. duuraat na ko ngàtt na ko. duuraat na ko ngàtt na ko ngàtt ja. ma koy bot bot bot bot. Oh, na ko ngàdd na ko dóoraat na ko ngàdd na ko ngàdd ja ma koy bot bot bot bot oh bot ni la rabi ma am dana ma jaamaana o de na geble Zarko de sang Zarko de sang ñi ngi xeex waaw waaw waa sang yow sa kanam gi nga bàyyi noonu rek dinañ la dóor nga daanu Zarko de bañkat la bañkat la bañkat la daanu na

Jamax Boy Bawal mboot mboot mboot mboot la ilaha illallah eh waay Gaw Samba Boy Bawal numéro 2 bot na tee Max bot moo xam ne di ànd ak moom di ànd ak moom di ànd ak moom bot Moussa Ndoye Tonnerre ñoom ñaar ñi ngi jàppante ñi ngi bële ci suuf Tonnerre bëgg daw na placal Moussa Ndoye bot na ko bot na ko bot bu rëy Bruno Moussa Ndoye daan na Tonnerre jël bu rëy la ilaha illallah sant yàlla ñoom ñaar bu kenn jàppee ba mu dëgër làmb ji du jeex attention nongolo bébé bismi bébé bismi mel na nu lu ko wër moog nongolo ñoom ñaar ci suuf attention la ilaha illallah xale yi danoo mën a ay ndaanaan lañ nee naa la eh kii bëtt na ko la ilaha illallah la ilaha illallah nongolo bëtt na ko daan ko wulli wulli un wulli wulli la ilaha illallah